waaw bëri na doon na waar tamit te garaaw na waaw xam nga maanaam accident rek du koy ëpp lu koy indi maanaam chauffeur yi rek si seen cadre dawal quoi ak seen wàllu indiscipline si tali bi xam nga léegi chauffeur moom day dawal jël téléphone teg si noppam xam nga wala ngay dawal di wax ak ñenn ñi ak genre yooyu noonu nekk si yeneen affaire quoi tamit yooyu yëpp day lu day nekk lu war a fekk sok dafa nekk loo xam ne c'est des comportements yu ñu fekk yu ngi Sénégal fu nekk Sénégal état bi bàyyi na loxoom ba ku nekk lu la neex def. Eh, nit ñi dañuy jaawale démocratie <clears throat> ak anarchie maanaam réglementation code de la route changé wul ba léegi fi mu newoon la nekk je pense à quelques panneaux près muy lan la priorité à gauche sur rond-point yi amul dara lu changé ñun bi ñu gën a nekk xale dañ daan gis gendarmerie di vérifier bay vérifier pour oto yi pour les transports interurbains mais léegi loolu amatul. jaaxal nañu moom ci dëkk bi wax dëgg yàlla te mënuñu ci dara tamit parce que toujours ñu ngi ci oto bu ñu wàccee si la ñuy dugg di ñibbi encore mais li nga siy gis moom yàlla rek moo ko mën a wax ku nekk teg nga si ba dañuy course daal moom moom yaakaar nañu moom ay auto de course lañ voiture de course lañ yore ñoom ci tali bi neex la def kenn mënu ci dara boo nee bàyyi li ngay def ñu yokk seen allure mais nag après toujours nii rek lay mujj ah ay soog yu bizarre nga gis ñaari tata yu jëkkante ay clients nii waaw wala ñuy dawal di téléphonante. di ñaax loolu gars yi chauffeur bi yëpp chauffeur boobu ne mu ngi dawal mu teg ko si yoon xam nga code de la route bi jàmm mën am ko waa waaw am na chauffeur yoo xam te ne maanaam tey mën nañ ñëw sax fii nii ba si fii ñu liggéey nii chauffeur mën na fee ñëw tey xam ne carrément nga expliqué lii nga paan mu ne xaar damay daw ba suba tey daw ba suba boobu mën na koo jural